jërë jëf euh, mbokk yi mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu ci nuyu buy bu gën a sell di leen balu ci weeru koor gi di leen balu àq di leen jox ziyaareeb cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko jaarale ci jëwriñam ji di porte parole di cheikh Mouhamadul Bachir ibnu cheikh Abdul Xaadir ibnu Xaadim Rasul mu ñëw teewal ko fii te bii di ñetteelu yoon ñuy organiser ci ndigalu sëriñ bi lii ñuy wax ndogu wala iftar ci suñu mbokk yépp di ci woo gouvernement bi di ci woo diplomatique bi nga xam ni dañ leen a accrédité fii ci Sénégal ñuy ay dëkk yoo xam ni dañoo amanteeg ñun jàmm ba jël ay ndaw yónnee leen fii ci réew mi ñu di leen fii présenté ñu xam ni ñooñu suñuy dëkkandoo lañu suñuy mbokki jullit lañu li ñu ci ëpp ak ñi nga xam ni ñoo ŋànk diine ji ci réew mi yor ko amanteeg suñu yaakaar Serigne Touba. ay relation yu yàgg yoo xam ni ca mag ni mu bëggee sëriñ bi ak taxaw bi mu nekk ci bëgg sëriñ bi te di ko wone fi mu toll loolu moo tax ku yaakaar sëriñ Touba ku ne amuloo ci moom sagoo gërëm ñoo ngi koy sant di sant tamit mbokk jullit yi nga xam ni bi ñu sëree lu mel nii ñoom ñëpp ku ci nekk jàpp na ci sa loxo bu ñu sañ ñëpp dañ leen di jox kàddu ñu wax seen yéene ndax ñoo ngi lay seereel ni sëriñ bi gouvernement bi premier ministre mi toog jàpp bi muy président Macky Sall Mbaye Ndiaye mii la yebal jox ko teraanga mu indi ko premier ministre moo ko indi boppam ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome ba ñu tàmbalee ba léegi moom it loxoom mi ngi ci ndogu yi mi ngi tamit ci bés bi waaye taalibe yoo xam ne yi ñoom it dañoo bëgg lu baax bëgg a liggéeyal sëriñ Touba xam ne lu ñu fi joxe it du romb sëriñ bi dañ koy def ci liggéeyu sëriñ tubaab bi ñëw nañ fi am fi taxawaay bu am solo ma di ci seppi ñaar kenn kii Ablaye Jàll tudd bu Sénico te suñu mbokk mu baax mële di sëñ Bas Xaadim Awa Ba di sa doom di jàmbaar di ku baax soññu ku mu xam di la xiir ci lu baax surtout liggéeyu Serigne Touba bañ ko jëkkee def ren la mu joxe woon daf ko doublé woo ma ni ma dinaa indi ci tuuru Ablaye mu nga nële maa ngi la koy wax di la ko sant di la ko seereel di ko seereel Serigne bi di ko gërëm di ko sant Cheikh Modou Bachir jërëjëf dafa xat ndekoon yéen ñi ñëpp ku ci ne dinañ la jox kàddu nga wax di sant Thierno Ba Thierno individuellement moo ñëwal boppam. daj jël xaalis bu bari jox ma moom it ñoo la koy seddal bëgg nga ñaanal ko ak mbooleem rek ñoo xam ne bu ma doon lim duñu ñu tàlla ndogu te kom ndogu moo ñu fi indi waaye kiñ ko jox muy sëriñ Touba damay faral di euh, dégg bi neex na lool bët bi neex na lool lépp lay gis loxo it lu ko defal dina la ko fay ken defalul dara ku nek sa bop nga defal lu way di def ma nga tax Wai munul bayil way lu way di def te beug ci pay nangko ak fañu jëm nang ko def ndax Serigne Touba dañ ko wara woné Serigne Touba bien bo xamni bi kadolo cadeau la c'est un cadeau pour l'humanité tout entière. Hier, qu'il avait prise ici en 1918 de la pierre, de la première pierre de la mosquée de Djurbel. Ça a été illustré. Ça fait actuellement 105 années. Un brocanteur l'a acheté, certainement avec la famille de l'architecte qui avait mortalisé, immortalisé plutôt, cet événement. Un autre collectionneur l'a acheté avec d'autres photos dans un album anodin. Et certainement, quelqu'un l'a vu et attirer, a attiré son attention sur la valeur d'abord symbolique de ces photos et sur la rareté de cette image. Parce que la communauté mouride, jusqu'à présent, n'avait qu'une seule image de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est hier, avant-hier ou avant-hier qu'on a fait la remise officielle de ces photos à l'ambassade du Sénégal avec un collectif qu'il a acheté aux enchères. Parce que les photos, le propriétaire s'est rendu compte qu'il avait entre ses mains une valeur inestimable. Comme il recevait des propositions de part et d'autre, il a préféré le formaliser en le confiant à une maison de vente aux enchères, qui a mis ses photos aux enchères. Et quelques talibés, dont j'en fais partie, ont racheté ces photos à 60 000 euros c'est deux petites photos, six petites photos de 7 cm sur 12 cm. Mais on se rend compte que le personnage qui est sur ces photos ne pouvait être personne d'autre que chez Ahmadou Bamba. Pour beaucoup de raisons. Ce n'est pas aujourd'hui l'objet de mon discours, mais on aurait pu peut-être argumenter pour que nous sachions effectivement qu'en 1918, il n'y avait que Cheikh Ahmadou Bamba qui pouvait représenter ce personnage avec tout ce que cela comporte de noblesse, de présence, d'un air altier et avec un port extraordinaire. Hier, le recteur de l'université, le recteur de la mosquée de Paris, a tenu ces mêmes propos pour dire que Cheikh Ahmadou Bamba est un don de l'humanité. Effectivement, c'est un don de l'humanité. kon bon bu ñu ko yàlla joxee séddee ko mu nekk loo xam ne xamuñu ko nañ ci ngoy te wone ko ndax ñépp a ko soxla sëñ Tuubaa du ñun rekk a ko bëgg li mu indi ëpp nañu li mu ëm indi àddina la ak alaxira ndax yàlla moo ko jox àddina jox ko alaxira bu ñu fi dajee nag e, di bëggalante ci suñu biir e, loolu xam naa ni lu ci mënuloon ñàkk la waaye maître de cérémonie bi nga xam ne bii moom mooy kilifa cérémonie bi te moo fi nekkal sëriñ bi moom moo waroon a wax man sax jàppoon naa ni dootuma wax ndaxte mien mot bien bienvenue bi jàng nañ ko ci tubaab jàng ko ci anglais euh, sëñ Xaadim mi nga xam ni mooy naay mu imam Chir di wax tamit ci turam muy imaamu raatibu jumaa ji di ko gërëm di ko sant ndax taxawaay bi ak li ko sëriñ bi doye woon tamu mat sëkk ci barab bi bi ñu waxee doy na sëkk waaye nag mu doon ay cant rek ñuy sant sëriñ bi ñun ñi mu fi teg ak ñi ma àndal ñépp di ko liggéeyal di ko wax ni ko nañu gën a ñaanal ndax ñun ñii de benn yitte rek lañu am mooy liggéeyal sëriñ Touba ak am ngërëmam lii lépp bëgg ngërëmul sëriñ Tuubaa rek ak wone ko rek a tax waaye du pour wut daraja du wuti maqaama du wut dara bëgg ñu xam ni ki ñu yàlla booleel amul fenn kenn amu ko sëñ kenn amu ko bu leen ko ragal wax fenn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ne xam na ni kenn amu ndax yàlla moo ni mooy xaatima nabiyina wa imaamul mursalin waaye nañu xam ni tamit ku baax ku mel ni Serigne Touba kenn amu ko ñun rek a ko am loolu nag jar na ñun ñu di won suñu mbokk jullit yi ak ñi dul jullit sax ndax Serigne Touba day njariñ loo xam genn lor amu ci loolu moo je vous invite à un bon dîner à un bon dogu good appetite and uh, see you the next year. I am very happy to receive you today. Upon English is not so good, but I try only to tell you ahlan wa sahlan wa mahraban. teel micro bi daf ci bëgg a barkeel sëñ